di amal mbégte rek voilà tey ki ñu gis fii ñu nekk xam ne ñu ngi ci terrain de football ñu ngi fii biir Medina terrain Jaraaf fas yéene seetaan euh, deuxième édition Ligue des Stars bi euh, mu jógee concept na mu ngi jógee ci PNG PNG nekk euh, ñoo xamante ne animateurs yoo xamante ne vraiment kenn dootu leen présenté nekk fee ci RFM mais aussi nekk biir TFM di bay seen waa di dox ci social di def yu rafet macha allah di dox aussi ci social bu baax a baax ndax ni ñu koy defee saa su rek ñu ngi sàkku seen mbégte ba tax na lii ñuy def nii si bëgg a boole comédiens yi ndax ku xool euh, premier tournoi yi gisoon nañ ci comédiens ñi ngi woon ci biir gisoon nañ ci acteur yi gisoon nañ ci aussi stars yi gisoon nañ ci aussi tamit vraiment ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi ci monde culture bi ngi ci woon tey nag ñu ngi fii ci finale bi mu nekk deuxième édition fii ci biir stade euh, Jaraaf bu Médina ci kanam tuuti dinañ leen wan ngeen seetaan euh, match bi waaye tamit dinañ leen wan célébrité nga xamante ni ñu ngi fi aussi ñoom tamit ñu wax ñu seen xalaat ak seen teewaay ci bis bi incha allahu rabi si kanam tuuti tuuti tuuti am internet Dakar Buzz nu euh, ñu leen di nuyu di leen waxaat rek mbégte saa su ne am di jàkkaarloo yéen ni ma leen ko waxee euh, béggal leen saa su ne ci la ñuy dox ba tey ñu ngi fii ci stade Jaraaf fii ci mbir Médina fas yéene euh, teewee grande finale bi nga xamante ne mooy am entre PNG team ak Henri Camara team ci kanam tuuti di ngeen seetaan match bi en direct waaye laata boobu dañuy waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom dañoo bokk ci organisation bi maa ngi taxaw ak Pii dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ak internet yi après ñu daal di waxtaan Pii maa ngi lay nuyu ne maa ngi taxaw ak pii pii maa ngi leen nuyu daanu nga daanu nga daanu <laughs> nga ji maa ngi taxaw ak ji xam nga ñoom ñaar tamit mooy loolu ku ci wax rek nangu ni moom waaw sotti jeg def ci la mu ngi noonu maa ngi taxaw ak ji uh, mu koy bàyyi mu daal di nuyu internet yi <laughs> yow célibataire nga est ga que xam nga 2023 bi duñ fi génn te doo marié wala <laughs> donc euh, di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan Dakar TV C'est PNJ, les jumeaux, animateurs bien sûr, à la RFM, TFM, DJ dans les boîtes, un peu partout. Voilà donc li Ligue des Stars la deuxième édition bi donc tey ñu defee finale bi bien sûr Médina mais avant finale bi amoon na premier tour yi ñu defoon ko si euh, koor gi fële si Sénégal Japon qui regroupait plus de seize célébrités voilà notamment influenceurs yi tiktokers yi ñoom pot tu vois gars yëpp ñoo ngi si woon foofu comédiens yi lutteurs yi ku si mel ni ñoom Modou Lo tu vois gisoon nañ fa ñoom Bastion Sidi Diop Akhlou Brick Ngaaka Blindé y avait tous les artistes quoi mélange la woon donc ces équipes la woon tey yàlla def ñaar ñoo qualifié muy team Henri Camara génération 2002 contre team PNG donc final bi nag tey la ñu def ko Médina invité ñëpp pour ñu ñëw support dooleel projet bi bien sûr moo waral tey lii ñëpp def déplacement bi quoi. mais ñu ngi gis ambiance bi déjà commencé na le fait que ngeen ñëw def retrouvailles yooyu lan lan la leen di def ak initiative bi ci kan la jur. waaw déjà PNJ ñëpp xam nañ ne dañuy œuvrer sur social dañuy œuvrer pour jàmm Sénégal quoi donc ça fait plus de ay dizaine d'années de cela dañ daan def ay tournois yoo xamante ne dañ ko daan organiser di ko def ci quartier yi weeru koor yi quoi di inviter ay Waly ay Mbaye Dièye donc yàgg na quoi donc PNC ñun en fait ñun naturellement suñu nekkul woon DJ animateur je pense que football la ñuy footballeur la doon. parce que ça moo tax léegi euh, ñu organiser li pour jàmm la paix pour vacances la ñu nekkoon tamit période la ñu nekk permettre ñëpp di xamante parce que yombul ngay gis artistes yi da ngay dem di fay soirée 5000 pour gis leen léegi PNJ permettre nañ leen entrée gratis nga ñëw gis sa artiste. neex mooy euh, ji mooy dañuy gis ni que euh, comédiens yi gisoon nañ leen ci artistes yi nga xamante ni ay chanteurs gis nañ leen ci animateurs yi rawatina ñun journalistes yi aussi tamit daje la ci ñun tamit parce que mu nekk loo xamante ni lu nice a nice la tey muy final bi tey lan lañ mën a xaar ci final bi waaw final bi déjà tey dina euh, li nga xamante ne innovation yu bëri tu vois déjà match gel yi commencé na yaa gis naa leen yéen a ngi jël match gel yi dina am asiko yi dina ñëw yëngal tuuti dina am ay invité surprise ñi war a jouer presse mi-temps bi ak match bu neex parce que Henri Camara nee na dafa dafa sélectionné ay Cheikhou Kouyaté ay Mbaye ay mag ay ay nee na du ñu may dara daal nee na ku bee ko tax a jóg. ay mag ay mag dara waaw gis nga. donc match bi du yomb tey quoi ma incha allah voilà donc euh, di wax ne merci à Dakar TV seen job nice na gars yi rafetlu nañ job bi merci à vous aussi. merci beaucoup mu ngi noonu ji la woon ak euh, ñun euh, ci kanam tuuti dañuy continuer rek parce que célébrité yaa ngi fi ngeen géejoon gi génération 2000 bi yëpp di ngeen leen fi fekk incha allah ci kanam tuuti dinañ doxantu seeti leen ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom. ayca mu xam ne nag moom moo di Médina ci terrain bi nga xam ne fii la PNG organisé deuxième euh, saison bi nga xam ne moom moo di Ligue des Stars ren ñu daal ko def ci jàmm ak salaam tey ñu daal di jouer li nga xam ne nag mooy la grande. finale euh, kan ak kan mooy daje l'équipe organisateur di PNG ak euh, génération 2002 bi nga xam ne daaw premier match rek ñu def prib dip daal di toog <laughs> ren ñu ñëw ba final mais mais mais daaw ni ngeen toogee moo ñaaw. daaw du mu demee la xam nga daaw dañuy ñëw. <laughs> foog na affaire yi foo la. <laughs> ñu ñëw daje nag équipe boo xamante ne dafa teel a pare ñu ñëw rek comme li nga wax dip ma ndax gaa yëpp boo seetee andiwuma si gars yooyu andiwuma si kenn. mais est ce que nekk génération 2002 comme le nom indique ay mag lañ léegi nag ay paa lañ. non du ñu ay mag nag. ah mais paa nga aari. man noonu la paa. ah, ah damay laajte rek. man noonu la paa booy. saa yi saa yi mooy moom ba léegi saa yi mooy forme ba léegi rek doo gis muy entraîné Salah nag. neex si affaire bi mooy tournoi bi muy commencé sama boy bi dama ko ne boy. Hmm. final laa jëm. ñu leer laa ko wax dama ne ko final laa jëm. comme ça te xam naa ne man ak moom ñooy dem final. Hmm. mais nag. ay gars nañu donc finale bi moom ku ko gagné rek baax na ko mais yàlla na doon ñun mais bu dee ñoom la tamit moo benn même famille bi la ko parce que ay ay jantal booy nañu te booy cool nañu xam ah, man déplacé moom moom yombul. dëgg la voilà donc su ma demee ba bokk si ñoom rek. Mm. parce que dafa am lu ñu ma won ko tout à fait voilà donc di leen ñaanal tournoi bi. Mm-hmm. gars yi gën si jàpp quoi parce que tamit xam nga ay jeunes lañ yoo xamante ne ñu ngi def loo xamante kenn def ko dajale. c'est important et c'est euh, pas du tout évident. ah dajale kii woykat yi fii rappeurs yi. fii lutteurs yi comédiens yi lutteurs yi modules donc euh, Sénégal yëpp dañ si war a gis seen bopp ñoo jàppale leen ay xale lañ yoo xamante ne bon am nañ idée quoi donc lii dafa neex. ñu mën business a ngi nii. voilà gone yu mën business. yeah donc euh, noo dundee déjà di rafetlu euh, kaddu yi nga xamante ne suñu frère wax nañu ko Henri Camara moo ngi sol numéro 7 man numéro 7 la sol. donc tey su ma demee ba di sol numéro 7 ça fait des années moom moo tax ma doon toog si télé bi di ko seetaan. muy octobre yi moom laay def nii ba léegi quoi donc euh, c' est une référence quoi man personnellement soo ma laajee sama joueur Henri Camara la tey tournoi bi boole ñu ñu dem ba daje final donc euh, c' est un immense quoi. Mm-hmm. xam naa ne dina dugal man dinaa dugal nag quoi mm-hmm. parce que dañ ko waxante quoi. Mm-hmm. mais kuy gagné voilà la question que tout le monde se pose. mais bi man dama ci am ay jàngat final bi dafa bëri ay romandaat yéen yéen a ngi te dégg naa tamit abbi ji ngeen yeneen joueur waaw dem Mbour lañ jógee dañu jógee jaar Joal jaar Mbodiène xam nga voilà gisoo gurdu bi fa la affaire yi nekk oh, ñu suy koy yëngal <laughs> yu wis xam nga sama kër la fii sama kër la damay egsi rek ne ma gars yi ne ma gars yi ñu ngi wis <laughs> donc pare leen seen mais garaawul ñu xala yàlla la ñu àndal nee naa dama leen bàyyi ñu football match bi ñoom ñooy football match bi yëpp dugal benn mais est-ce que sentiroo ko woon nag yow da ngaa jënd ay joueurs ñu bees tàq la indi ci final ñu bees tax. ay international. ay mbay Diagne Mbaye Diagne. Mbaye Diagne xam nga ne loolu mooy rey booy yi. yow fekk ku yow aar ay mbay ay aar yi ñoom kuyaate ku si ñëw duñ la may dara. xam nga lan li ma neex ci aar rek Bayal Sall ay triant lañ muy coach bi ak euh, entraîneur ah. noonu laa ko tuddee euh, coach ak kii ak kii nu mu tuddati capitaine <laughs> moom mooy coach Bayal di capitaine ñii ay triant lañ ah. yéen ay mag nañ dañuy def yëpp mag nañuy def. xelu mag magu démb yi dañ leen ñu bàyyi ñu ah, fubal ngeen xool gone yi ah, xool leen ba seppali leen na xaaral ñu xool ci jour yi nekk en activité indil Mbaye Diagne Mbaye Diagne war nañoo wax di jàkkaarloo ñu non xam nga lu tax dañu bëri ay manquant ñoom xam nañ ni mu demee ah, waaw loolu moo tax ñu ne xaaral ñu jéem a andi waaw xaaral ñu andi gars yi ndax affaire bi gën neex loolu ça nous fait plaisir de jouer ak ay Mbaye Diagne ay Henri ay Kouyaté tu vois euh, voilà donc euh, il y aura du beau jeu quoi donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure merci beaucoup wala ñaar benn question pour euh, voilà euh, sama question moo doon est-ce que lii nii luy lay doon mën nañ xaar troisième quatrième édition. waaw waaw bi mooy deuxième édition bi première édition bi jàlloon na deuxième édition bi donc troisième édition bi pourquoi pas ñu defee ko Mbour avec PNJ tout est possible ay idées ñoo ngi fii koy xalaat quoi waaw dañ ko bëgg a décentraliser di ko toxal quoi je pense Mbour tamit dina bokk projet yi quoi. bi pour prochaine troisième édition bi quoi. incha allah donc d'accord si kanam après match. Euh, si jàmm bu baax. tey nga ñëw ci tournoi bi nga xam ne les jumeaux des animateurs yu di PNG foofee ca TFM organisé ko ren di nekk deuxième édition bi Mbaye Diagne di teew déjà initiative tournoi bi ñoo ko gisee ak lu war sa teew. waaw ça va ñu ngi nuyu ñëpp ah di ñëpp nuyu waa Mérina wu Sénégal yëpp waaw la première fois nag bu fekkoon euh, waaw bon ñu nekk euh, Sénégal. ñu ne pourquoi pas ñu ñëw tamit ñu découvrir xam nga c'est tout quoi loolu mais yi bi ñuy ñëw ñu ngi doon suy xooy waa ñi nga xam ne ñoo di PNG parce que ñoom nee nañu génération 2002 dañoo jënd ay joueurs des des joueurs en activité comme Mbaye Diagne yëf yi yëngal leen. Nabou est-ce que amul lu mu dëgg sax bi muy dugg est-ce que amul lu mu dëgg ndaxoo daal la. waaw xaw ma duma jàpp. est que. non non non du ma jàpp dama ñëw rek pour foo quoi ah. fan nga teg ne xool du la jàpp. waaw su ma yaay moom mooy ñaanal moo tax. Ah. waaw mais ñii nii dañ ko ñii final bi cofuñu ko dañ ko jëlee doole de mbay. waaw ñu dañuy ñëw rek pour foo mais ñun ñooy gagné fu ma fuwal waaw waaw. mais xale dañoo pare de mbay te ñoom it euh, bien vrai que ay xale lañu yéen ay mag ngeen am nga foo leen jaar ci football mais ñoom it pare nañ. du ay mag man du ma mag de. mbay mais attends attends taxawal da nga gunge si génération 2000. mais ba tey soriwoo leen mais tamit euh, xam nga lim tëdd ci. booy daal maa ngi ñoom maa. yaa yaa tuddee yaa ñoom Pa Henri Paye. Ah, man man nang laa def nag xam nga fi moom. on est pas là pour non man du ma leen may dara moom. mais Henri am na lu wax de. nee na da leen di bàyyi ñu rey premier mi ba seen doole jeex ñu dooree ñëw. man moom premier ak deuxième bi damay ànd ak ñoom man am naa doole bi pour dem. macha allah waaw doo doo de. non non da ngay dem ba fin. ah ma ñoom génneewul du ma génne moom man moom waaw. mën nañu minutes waaw plus addiction yi addiction yi. <laughs> ay kon baax na ñu bàyyi yi ñu dem seetaan. te fii xëy na sori na ci ñenn ñi donc ñoom bu ñu taamoo ñëw Médina vraiment ñu ngi offrir plateau yi rafet rafet ñuy gis ay anciens internationaux ak ñoo xam ne ay internationaux lañ ba léegi di football donc euh, ma koy rafetlu bu baax a baax euh, di wax tamit ni comme que yow yaay directeur stade bi wax leen ni ñoom may nañ leen douze matchs gratuits. donc à partir de tey may nañ leen douze matchs gratuits lu leen neex ak heure bu ko bëggee nañ ko jël ok merci Yes. There. Yes. Yéen fàttali yéen ah, ñi nga xam te ne yéen ay réservataires di jàppale ñoo xam ne ñoo la seetaan des stars defoon ngeen ko daaw ngeen gungee ñu ren tamit ngeen gungewaat ñu di leen félicité yow ak l' ensemble des journalistes et des sites internet qui ont décidé de nous accompagner. match bi nag euh, tey team PNG ak team Henri Camara ñoo daje final mënul woon yomb parce que Henri Camara ku ko xam xam ne joueur la PNG ku leen xam tamit xam ne ay joueur lañ en dehors de du bi nga xamante ne moom lañ nekk. donc tey ñaari favori si tournoi bi ñoo daje woon muy tim PNG ak team Henri Camara match bi un but woon yomb. PNJ dañ njëkk dugal Henri Camara égalisé donc deuxième mi-temps dans cinq minutes on va redémarrer la deuxième mi-temps donc euh, di ñaan yàlla may ñu nam si. mais gis nañ benn waa gis nañ benn but voilà am na tam benn but bu ñu rejeté aussi. moom man ma voilà voilà je. waaw génération 2002 dañu dugal benn deuxième but. non astafurlah benn but boo xamante ne dafa bëri polémique parce que suñu joueur voilà suñu joueur yi dañ la euh, arbitre tiré wul hors jeu tiré but football la noonu lay demee erreur foog mu am pour mu am ay but erreur am na arbitre gisu ko tiré na but on fait avec on se concentre et puis deuxième mi-temps ñu jéem a xool naka la négocier match merci merci à xam ne am nañ l'entraîneur ou bien ki nga xam ne moo tudd. capitaine capitaine capitaine capitaine. d'accord ki nga xam ne moo jiite l'équipe génération 2002 nan ngeen ko dundee. Euh, bon instant yii match bu match bu neex la rek 1-1 la donc comme lu may wax rek final la donc ken xamagul kuy kuy jël ndam bi mais pour le moment neex na ñaari ñaari équipe yëpp ñu ngi mais gars yi nee nañ premier bii bi par erreur la ko jël. bon xaw ma man football moo demee noonu mais tension yi yéeg na quand même. non mais final la final la c'est normal. léegi ñu ngi ñaan yàlla rek moo dugal dugal dugal deuxième bii bi ñu koy. mën na la maa ngi dugg léegi. d'accord. gars yi bi doon am yaakaar bu ñu waxee numéro 7 parce que yëpp a dem si 2002. dëgg la yaakaar ni deuxième a ñëw rek la situation bi bon maa maa ngi préparé pour dugg léegi. nekkuma nag si forme bu ma. mënoonoo xaar sa bi mënoonoo xaar sa bi mais daal ñëw naa pour dugal sama bi. <laughs> macha allah waaw mais mon ami maa ngi lay fay bu baax di kontaan si yow di nuyu bu baax donc euh, c' est un plaisir quoi ci tournoi bi nga xam ne nag première saison ba deuxième saison fekkee nga lépp yow bokk nga sax ci équipe bi nga xam ne bokkoon nañ ci tournoi bi malheureusement ngeen teel a nan nga dundee lii. non franchement tournoi bu neex la bon déjà opportunité la pour que yenn célébrité yi nii ñuy gisante di saafonte quoi donc da nga ciy gis dang nga siy rencontré waale ay nit ñoo xamante ne da ngeen di xamante nii rek à travers la télé mais si genre événement yu mel ni vous avez l'occasion de vous rencontrer xam nga et de faire des connaissances donc c'est magnifique quoi man lii moom dama koy magnifier bu baax quoi di féliciter waa PNJ voilà euh, c'est vrai que Pod yombul euh, nga dajale célébrité gis nañ ci comédiens yi gis nañ ci euh, acteurs yi lutteurs yi ñëpp ñu ngi woon si biir yow ban jàngat nga ci am. waa mais lii lu mel nii dañ ko war a perpétuer parce que tey soo xoolee milieu artistique bii sport bi ñëpp ñuy dajaloo et puis di saafonte day wane ne ñun ñëpp benn lañ quoi et puis les gens bon célébrité yi seen biir da ngay sentir dañuy saafonte suñu tasantee. dangay gis ne ku ci nekk soppoon nga sa morom mais amoo leen woon occasion gisee mm. donc ça c'est quelque chose de super quoi donc euh, bi mooy deuxième saison bi li si intéressant mooy chaque saison ngay gis muy gën a intéressant première édition bi c'était bien mais bi moo gën a complet donc il a du monde et c'est un ba mi-temps bi donc euh, franchement c'est bien quoi. Ah, ci biir loolu tey final bi la. Mm-hmm. Ah, parce que première mi bi gis nañ tension yi. Mm-hmm. jub na malgré que égalisation am na nga dundee final bi. loolu final bu metti la bon dama xam waa PNG ah bon waa PNG dañu nekk équipe boo xamante ne duñu bëgg perte donc c' est sûr match bi man gars leen ñoom ñooy favori parce que daaw ñoo final woon ñu dóor leen en tant que ñoom ñoo ko organisé donc bii suñu ñëwaatee encore final man leer na ma ne duñ ko bëgg perte quoi donc man ñoom laa jox favori mais quand même équipe bu Henry bi dañ nekk équipe boo xam ne dañu expérimenté ñoom tamit ils n'ont pas démérité euh, dem ba mais ñoom en fait c'est lu tax ñuy am chance parce que suñu nekkee terrain bu ndaw dañuy jaxase gars yi mais final bi pour euh, pourquoi du ma leen jox favori c'est parce que terrain bi su magee. temps di gën dem ñoom dañuy gën a sonn. mais ñoom nag ñoom mais la ñu bañ a parce que Henri d' après li mu wax sànq nee na premier mi-temps ñu joxe lépp après deuxième ñoom ñu ñëw wan leen ni que duñ seen morom. Henri daa daw match moo tax gisoo ko. deuxième mi-temps la non daa daw. nañ <laughs> dara say poulain bi ki nga xam dudd mm-hmm. ak ah, gis nañu tey kenn ci kooku daal di jël soxna am mm-hmm. ah, ki nga xam ne nag moom di dudd am ah, nan dundee bis bi tey waaw mais bis bu rafet la soo xoolee falaa jugee nii donc euh, falaa demoon ma ma ma ma saafonte ak moom quoi donc sama njaboot gi euh, waaw njaboot gi yëpp ñi ngi sëy donc lii moom c'est fi donc dañuy ñaan rek muy continuer parce que nga dugg ci milieu bi milieu boo xamante ni nit ñi dañ ñaan milieu de débauche la ak lu nekk. Mm-hmm. ñu ngi wane nag que mën nga si nekk ba après nga pare sëyi si bu rafet nag franchement donc euh, ñu koy encouragé di ko félicité ko. milieu bu ànd ak coow la nag euh, bon. Doudou ak Ngor euh, depuis bi ñu gisee seen moom moo bi Marodi dañ leen def tege à l'écart tegee leen de côté moo tax série yu bëri gisatuñu leen ci de même que Adja bi dañ ko tegee ne la lan euh, amul moom sax xam na ne amul ah bon en mais amoon nañ ay projet yu bëri yoo xamante ni ñu ko doon waaj mais à chaque fois que ñu doon préparé donc euh, finalement affaire yi dafay soit day am leen luy am mais comme d'habitude ah mais loolu mësul am. ñun mësul parce que man pot. voilà Pod bu problème amoon tey Pod du ñëw nañu ci Doudou la jógee mariage Doudou. waaw non non non loolu amul parce que maa ngi dem foofu noonu si mariage Doudou non sama fils la te daf ma respecté. mais pour internet yi nga xamante ne ñu ngi. effectivement moo tax ma ne problème amul ah. en fait moom soo gisee saa yuy wax si ñun wala si Marodi day wax lu rafet. daf ñuy remercier tout le temps daf ñuy à chaque fois il c'est un jeune qui est très xam nga chaque fois fu mu waxee si man wala ci Marodi day tudd na ko wax na ko fii la jaar et franchement voilà toujours bien traité et puis waaw Marodi la jàngee lépp quoi donc tey jii nii euh, li gars yi di wax noonu loolu amul on s'est toujours entendu dañu mës a waxtaan dañ ko mës a soutenir donc loolu amul quoi li ñuy wax ne que dañ ko bàyyi wala dara non non ñun on n'est pas comme ça d'accord d'accord mu ngi ci biir loolu dañuy daal di ñëwaat ci beneen point parce que ah, dafa am ñaari série yoo xam ne troisième bi sax gis nañu ne yeneen ci góorgóorlu parce que koor gi ñëw na tabaski bi ñëw na muy les trois fantastiques mu des yeneen deux yoo xam ne dafa marqué sénégalais muy Cheikh Adja ak bu ci ko gars yi nee nañ ñaari yooyu yëpp problème sponsoring la tungu di teew ñu nataal parce que sénégalais yi soxlawaat nañu série yooyu parce que ñoo leen di bëggal Marodi ba mu jéego la ci fas yéene taxaw. waaw bon problème sponsoring bon loolu yëgu ma ko ah bon je pense pas que mu nekk loolu noonu. parce que yooyu c'est des problème sa affaire Patisen. waaw voilà. fait c'est-à-dire que série Patisen la. d'accord Patisen ñoom ñoom lay neex ñu ne ñu ah di defar leen ñu ko. xam nga donc du ñun ñooy ñëw rek ñu ne noonu dañ koy def Euh, tey tey tey ku ma woo ne ma ñëwal nga au sein de Marodi suñ ma woowee ne ma ñëwal nga def série bi man dama koy réalisé wala dama koy bind tu vois donc euh, du si du si du si loolu noonu li gars yi foog quoi mais quand comme li ma wax man lu ma aspect bi ma gën a mun a wax c'est-à-dire si aspect artistique bi quoi cest à man géré ma côté sponsor bi wala commercial beeg yooyu noonu mais tout ce qui est artistique moom man soo si laajee que soit scénario wala contenu bi foofu dinaa si mën a wax te je sais que amul benn genre problème bu grave boo xam ne dañoo éliminer série bi wala dara non non c'est boo xamante ne ñi ko moom waa Patisen saa ñu bëggee ku def ko ñun dinañ ko def. mais est-ce que nekkul parce que TV aussi euh, dafa nekk maison de production boo xam dafa surchargé parce que y a pas mal de films yu yoo xam ne. Marodi mu ngi koy daal di teg donc est que tamit nekkul day xaw compliqué pare déchéance wala ji ñëw waajal deuxième saison pare karma pare temps pare temps pare temps bëgg a produire maximum de kii est que a saturé parce que aussi dooguma la nabu parce que dafa am ñoo xam dañu fa doon gis tout le temps ñu leen ni que ñi dañu ak Marodi mais dañuy dem ci ay séries yoo xam duñu leen fa fekk lan mooy problème bi boo dee ñu loolu la ñuy ñaanaa que séries yi bëri séries yi bëri production bon euh, loolu la bon ñun soo xoolee du man kase ma fa ma fa nekk scénariste ku ci mel ni ay Karma man bindu ma ko ku ci mel déchéance man bindu ma ko dafa y' a d' autres scénaristes donc y' a d' autres créateurs ñoo xamante ku ci nekk ak production yi ngay def donc dañuy ñaan ñun tout le temps chaque année ñuy def plus de production donc loolu lu doon problème ah, parce que benn kase mënoo ko def wala ñaar pour nga nekk maison de production bu mag. pour que ñu ñaan tey jii nii production bi nekk production bu mag loolu lay doon bon concernant les acteurs loolu amula ah, ay acteurs bu fi nekk nekkatu fi non non non acteur mën nga jouer sa contrat mooy jeex peut-être après gistuñu la mais su amee beneen série bu ñu la soxla dañ lay woo c'est tous les acteurs ah donc euh, loolu côté boobu moom y' a aucun souci quoi. parce que Marodi i yi dafa ànd ak coow trop. kat man eh coow Marodi ah ah loolu yëpp nga xam ne. pot pot xam nga li ñuy wax nag. on a ah, ah. mm. euh, ñëpp a toog di xaar. les ah, de la cinéma mm. mm. bi. été bi waaw waaw bon là actuellement soo xoolee am na ay production yu ñuy préparé. bon loolu mënu ma si wax gum parce que communiqué guñ si. mais c'est sûr que di ngeen ko gis ñun production yi day bëri. loolu moom dama koy promettre gars yi quoi donc production yi dina bëri dina dina dina yokk am na ay séries yu ñëwaat yeneen saison bon yu ci mel ni Virginie bo ñëpp xam nañu ni mi ngi waaj a ñëw donc loolu c' est pas un secret. déchéance. waaw déchéance moom peut-être ah, je sais pas maîtriser wu ma bu baax mais je yoo xamante ne bon dinañ ñëwaat et puis ak tamit yu bees quoi donc côté boobu moom ne vous inquiétez pas. d'accord carte fantastique bien sûr bien sûr bien sûr. parce que cartonné na vraiment. waaw waaw boo gars yi bëgg nañ ko ah moo tax ñu indi ko si tabaski bi. voilà phénomène yi. waaw donc laal côté boobu noonu moom nice les gens aiment bien et puis bon pourquoi pas mu nekk série boo xam ne dina mën continuer régulièrement quoi. merci beaucoup finalement mujj nga emporté li nga xam ne yàggoon nga ko wax depuis début bi nee nga ñëwoo pour jouer dem da nga ñëw pour jël li nga xam ne moom di ligg euh, deuxième saison bi moo parce que même bu dee foo la tamit dafa neex dafa neex ba pare final moom boo ko gagné dafa neex ñun ñun ay compéti compétiteur nañ bu ñu bu ñu sax dañuy am lu ñu métti mais tey match bi match final la boo xam ne gis ngeen ni mu amee ñaari équipe yàlla def na ñu gagné nañu kontaan si loolu. mais nag 4 mais ñu ngi félicité tam beneen équipe. waaw l'homme du match. l'homme du match wax ak moom parce que tey moom match vraiment da nga def da nga démarrer. waaw xam nga d'ailleurs dañuy wax ne final kenn du ko dañ koy gagné. waaw parce que football moom moo demee noonu. comme ko waxee léegi ay compétiteurs lañu yàgg nañ football moo tax booy tey bu ñu joué ñoom. bu dee ay daw yooyu dañu siy raw moo tax ñu ñuy taxaw si place yu baax yi rek jéem a def lu ñu mën yàlla def tamit équipe bi suñu équipe bi joué nañ tamit aussi boo xoolee deuxième mi-temps bi réaction bu ñu am par rapport ak premier mais comme ni ñu ko waxee rek joué pour gagner te waxoon na ko tamit ba ñuy commencé tamit waxoon nañ ko dañuy joué pour gagner ñu ñëw na pour joué nii pour kii parce que ñun score la ñuy joué yàlla dem nañ ko euh, c'est équipe bi tamit démérité wuñ ko quoi démérité ko parce que ñoom ba match bi du jeex bàyyiwuñu ñoom tamit ñuy jéem a pousser pour égaliser. mais dañu gis ni que Henry daf ñu waxoon ni que da leen di premier mi ñu joxe deuxième mi-temps bi ngeen ñëw. te loolu ngeen def. lu ñu wax rek mooy da leen bàyyi premier seen énergie deuxième mi-temps ñun ñu ñëw te noonu demee di féliciter Henry si si équipe bi tamit parce que. bi boobu xam nga ku ma paasoon. Mm. aar mi moo ma paas. macha allah. non ñoo jeunoo cadet jeunoo junior jeunoo senior. yàlla def man ma dem si naar yi moom mu dem après Suisse. donc bi dafa yàgg waaw parce que man moom a Pape Bouba ñoo doon ànd suba ngoon. waaw ñoo defandoo lépp ndam si. mën nañu bi dafa yàgg. non dafa yàgg kii musul dugal bii moo ko paasu mm. moom tamit. Mali ba may dugal def na ma yaa ma doon paas bii maa paas mais sant yàlla dañuy ñaan rek yàlla ñu koy kii parce que initiative bi baax na tamit di dajale nit ñi. mais tey da ngeen renforcer équipe bi de en bi de dafa renforcer fois finale yàlla def li gën delloo daaw c'était avec l'équipe de Doudou. Doudou waaye leen. ren avec l'équipe de Henri mu xooñu mu xooñu. est ne ko yéen yéen organisateur. en ak défaite bi nga xam ne tegle ñaari at. ñaari saison nan def. waaw mais déjà di leen féliciter avant may wax dara Henri Camara félicitations félicitations bien sûr ak team parce que bëri woon na euh, ay artistes yi nga xamante ne nekk nañ Sénégal. tu vois bokkuñu si tournoi bi mais moom laa ñu ko woo en tant que doyen mu ne ma pii lu ngeen organisé dañ siy dugg tey munoon na ak statut bu mu mel non ñuy affaire de boole du mu si dugg et tout moom ak ay frères am ñu accepté wàccee seen bopp ñëw ak seen ay petits frères parce que lii yombul ñoom lu ñu def c' est des grosses pointures tey Sénégal moon entier ñëpp leen xam tey ñu tuutil seen bopp ñëw valoriser suñ tournoi parce que tey tournoi bi su demee ba am doole c'est parce que ñii nañu joué c'est des doyens donc les je vous dis félicitations je vous dis merci pour ce respect. en tant que sportif parce que ko xam PNG xam sur 12 mu ngi joué. Ah, nga ligue mel nii. ligue des stars ren nekk deuxième édition. ba léegi final boo demee da nga am problème c'est quoi waaw mais souci mooy manque euh, man pour man manque de concentration la rek tu vois donc déjà nga organiser rek c'est quelque chose tu es dans l'événementiel yow sa objectif déjà mooy sa final na nga def tout pour gagner am nga benn deuxième objectif mooy organisation bi na nice am nga deux aspects yoo xamante ne war nga ko jouer donc mentalement tamit loolu dafa joué woon tey tey gis nga organisation bi nu mu demee façon autorité bu nekk na sama portable la di woote tu donc c'était c'était pas chose facile nga organiser dem final déjà c'est quelque chose deux ñu koy perte expérience la rek. voilà troisième bi yaa ngi wax ni koy yóbbu da ngeen koy décentraliser. mën nañ ko xaar Mbour wala fan. waaw décentralisation moom lépp la parce que chaque année c'est de l'innovation ren extérieur waa France sax mën nañ jël Ligue des Stars yóbbu ay ñoom nabu ñoom ñëpp ñu tasaare ko bon ça c'est un cadeau venant d'un d'un frère pour Henri donc on va l'ouvrir ensemble et le découvrir mais kii mu lay provoqué ah da nga gaaw ci daaj laa dégg deuxième tableau bi. foto foto bi ba pare. deuxième tableau yow tamit Nabou Nabou loolu jàpp nga ko de Nabou yow tamit. Ali nice man. Ali yëkkati sa bopp si yëkkati. liggéey leen liggéey leen. liggéey liggéey. moom moo woy Allez les Lions. Meta félicitations. merci. Euh, monsieur le maire ñu ngi lay nuyoo gannaaw bu ñu la nuyoo ba pare la ñëw assister li nga xam ne moom moo di finale euh, Ligue des Stars deuxième édition ñu daal di def ko sa biir commune nan nga dundee loolu. vraiment ça a été un plaisir ci turu Médina ci turu conseil municipal bi ak population yëpp ñu ngi am mbégte di abriter ci suñu biir commune euh, xew-xew bu nii. yaakaar naa ni boo xoolee tey mobilisation waa Médina yi namoon nañu gis lu mel nii ba pare ñu gis ci ay internationaux yoo xam ne nii pratiquement gis leen yombul ku mel ni Henri ak ñoom si ak ñeneen ak ñeneen ñu gis leen fii tey donc mu nekk plaisir bu neex ci Médinois yi. PNG aussi ñun dañ leen di béggee dañ di gis ci écran yi ñu liggéey liggéey bu neex liggéey bu baax di béy seen waar ci li ñu nekk donc gis naa fi aussi ñoom pot ñeneen ak ñeneen vraiment. star culturel yi ñëpp ñëw nañu muy mbégte ci waa Médina donc may félicité vainqueurs yi muy génération 2002 ñoom vraiment but yu bëri nañu mais ñeneen ñi aussi ñoom PNG démérité wuñu gis nañu jàmbaar la match yu bëri na tension moo lay wan ni lii soxal na leen coow li bëri na mais finalement. Ah, mais c'est normal daaw dañoo demoon final gagné wuñu ren ñu ñëwaat final ñu dooraat leen donc c'est vraiment difficile te lu métti la. waaw xam nga ñoom nag mënuñoo yem ndax ñoom ay acteurs culturels lañu. ñee sportif lañu. mais ñoom laaj leen douze matchs sur douze dañuy football donc problème bi mooy ñoom lan mooy seen problème boobu bu ñu demee ba final am problème. non problème mu sëriñ la ñaam ñoom dañoo amul sëriñ. Ah, <laughs> waaw ñoom problème mu la ñu n'est-ce donc daal li ma la mën a wax mooy commune de Médina dina euh, am partenariat bu ñu am ak ñoom déjà à part de maintenant wax naa directeur stade bi mu jox leen douze matchs gratuitement ñu football ko. te prévoir nañu enveloppe boo xam ne vraiment dina leen accompagner aussi vainqueurs yi ak vaincus yi donc euh, dinañ ko programme aussi suñu session budgétaire bii ñëw dinañ fexe événement bi ñu boole ko ci agenda sportifu commune bi nga xam ni chaque année fi lay amee donc kër gi seen kër la Médina seen Médina la te yàlla dafa def nag euh, man Henri Camara mu mës a nekk sama joueur de tous les temps il a été. wane nga ko bi nga ñëwee rek lañ xam fi nga far. non am na ni nga waxee rek lañ xam ne. génération est-ce que indaalul ay xoo. parce que non noonu man nag pour wax dëgg PNJ laa faraloon ndax ñooy samay rak ñoom laa faraloon te démérité wuñu ah waaw 4-3 démérité te am na tamit ay ñol-ñol ci arbitrage bi donc yooyu yëpp gis nañ ko ci. ah waaw mën naa nekk nag <laughs> comment donc daal jàppal ni kontaan nañu donc. Euh, que la fête soit après nag bu yi passé ñu boole leen ñoom ñëpp ñu defandoo benn soir nag fi yéen ji def benn soirée nag pour feste jaare <laughs> El Hadj mu ngi fi ah El donc El mu ngi fi yaakaar élage El da ngay jàpp ci affaire bi après ñu def ko benn soirée de gala nag pour tëj ko officiellement dinañ ci dugal suñu loxo. mu ngeeg c'est le trophée ouais. du meilleur joueur euh, ouais. euh, du tournoi qui a été décerné par Henri Camara. Ah. Monsieur le maire qui va le donner en tant que doyen euh, à l'égard de ce tournoi. Donc je vous décerne ce trophée mais je vous dis que au-delà de cette journée tu as été le meilleur de tous les temps. <laughs> impression Henri. non franchement kontaan naa trop donc lii xaaruma ko woon ba pare xam nga sa. c'est normal daaw da ngeen ñëw rek toog. ah non mais daaw nu mu demee daaw nu mu demee la mais <laughs> mais léegi ay léegi ay mag nañu mais xam nga rek xam nañ nu ñu gérer final te waxoon naa ko nee naa danañu bàyyil match bi ñu gagné leen 1-0 laa leen wax mais boo xoolee match bi 4-3 ça veut dire un zéro la ba léegi. non parce que léegi nañ ma moytu nag voilà gis nga mais nag merci. acca merci. jaajëf donc lii maa ngi ko. yeah voilà donc euh, je dédie ça à la MIFA PNG Family ñi si jàpp site internet yi presse beeg ñëpp parce que yombul chaque soir gars yi ñëw bàyyi seen ité yëpp ngeen ñëw jàpp si support ñu doolal événement bi fii yëpp fees respect respect à monsieur le maire Henri Camara di ko wax félicitation daaw dañ ma dóor mu métti ma mais ren bizarrement affaire bi def tu moom laay wax nii daaw mosul def dama pare ñu dóor ma jooy mais ren dafa mel ni maanaam affaire bi ma dara quoi parce que waaw non du loolu en dehors de ça c'est une famille se un ami quoi di ko félicité dafa mel ni PNG moo gagné quoi voilà. te ko wax dès le début ne woon nga sa idole la moom moo tax nga bëgg football moom moo tax sa ngay sol numéro 7. numéro 7 yeah donc voilà tey moom moo waral lii yëpp man ak sama dañ ko doon seetaan gisoo nu may ogee tubéy si moom laa ko jëlee quoi benn instant. d'accord ayca mot de la fin. d'accord ah d'accord on attend ça. ayca Bayel Bayel Sala lay vient ayca Bayel oui. Bayal, c'est un trophée symbolique. Après, on va vraiment remettre le trophée original, d'accord hein? Ok, ok Bayal. Merci. La photo de Bayal et monsieur. Allez-y, allez-y. Aïcha, l'homme du match. Weeri coupe la ñu jël. mais ñii dañoo miin terrain bi. Moussa Mère Aïcha ñu jug. merci beaucoup xam nga monsieur le maire attaquant la ah yow mosoo xam ne monsieur le maire attaquant la. sérieux oui. attaquant la wax ñoo joué ndoo kete. il a dit toujours ñoo joué ndoo kete. mais a